wala bok dañ ci am njort gu dëgër rek ci loolu la nek daal na tan bi wete bi ala wala bu ñeek bi xala wana cheikhul islam ibnu taymiya tan bi hana ñaari yete la jox ibnu taymiya wa amma qawlu sa'ili way waxu aji laaj bi isa saxa bu wéree hadith xadis hal yakun ndax nek sirqan di deug deug fa jawabu tontu ba an sahihan lu wir an waawoon ay xeet la ku wax ne hadith bu wéré ndax deug lay doon mu wër na ñu lu wér la kooku tontu bi mooy xadis bu wér dafa am ay façon fa mina saxiix am na ci lu wér maa na nga xam ne tawaatara dégg nga bëbbu na lafduhu baat ba baat bi moo ñëw ci tawaatur mbooloo pour mbooloo nekk na ko ka xadis ni ka xadis bu wax ne man kasaba ku naral alee ci man mutaammidan di aji tey fële te boobu ana waajal maqaadu toog waaye min naari safara xadis boobu mutawaatir la wa minu am na ci hadis yi maanaam nga xam ne tawaatara nekk na mu tawaatir maanaaw maanaaw mooy ñëw na ci mbooloo par mbooloo mhm. ka ahadis yi shafa comme hadis yi wax ci rammu wa ahadis yi ruya ak hadis yi wax ci gis yàlla yawmal qiyaamati kooku maanaaw yu bëri na wa ahadisu nafil maayi ak hadisu ballak ndox min bayni asaabi ci diggante baaraama moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu maanaa bi ñëw na ci mutawaatir wa xeyru zaalik ak yu dul yooyu من فهذا حديث بملني يفيد ده يجري على المقام خم ويجزم ده يدعو بأنه نمم صدق دقلا لأنه نحن متواتر متواتر إما بين لفظ انتبار وإما بين معنى انتبار كل من حديث متواتر مم بجام تك ساك نمم دجلة متواتر مم كوكو لا جنس دارا مم مم بدي بير من متواتر لمبولو جريكو جنبولو من جسك وقام بعد بمونيك متواتر ولا معنى أوتر wa mineen xadis yi bokk na ci xadis asahi yu wér maa la nga xam ne talaqaahu daje naag moom al muslimuuna jullit ñi bi xaburi ci nangu fa amilu ñu jëfee bii ci moom bu dee bi bii jullit nangu nañ ko jëfee ko kooku xadis boobu lu weer la kama amiloo comme nuñ jëfee bi xadisil xurra ci xadisu xurratu jaam fil janini ci mbéemul ku rey ku yàq biirub jigéen da nga joxe ab jaam kooku kooku borom xam-xam yi dañ koy jëfee wa kama amiloo comme nuñ jëfee bi ahadis shufan ci hadisu ndab ndab moom fuqaaw yi xam nañ ko wa ahadisu sujudi sahwi ak ahadisu sujudi jamaj wa nahwi zalik ak yu mel noonu xam nga hadis yooyu borom xam-xam yi jëfee nañ ko ma xam-xam ba tey wa yu jëm dañoo mën a dogg bi àndoon moom sirkun dëgg la yii it dañuy dogg ne dëgg la ndax xeet wi talaqatu daje nañ ak bil qabuli ci nangu تصديقاً تدقلك وعملاً الجفاء بموجبه كذا حديث بدي وراء ده حديث بلا مي وقت برمكم كم جفاء لينكو كونوا جام سكساك ندقل ده أمة قالوا لا تتم درجة على درجة كبير فلو كان بنكون في نفس الأمر في جنب من مكسب النار لكان كون منك الأمة قالوا قد اتفقت دبونا على تصديق أهل الكذب شدقل نيو النار ولا عمل الجفاء بيتي وهذا لا يجوز دقل عليها تموم laa yu jëboo su duñ daganal alayha ci moom kon hadis bu dee nit ñaa ngi koy jëfee xeet bi dëppoo nañ ci jëfee ko rek dañuy xam ne dëgg la daa bu woon dëgg duñ ko jëfee ndax xeet bi duñ dëppoo ci dëggal fenkat yi wala jëfee fen wax ji fii nazar laaj na xooraat hadis daal bu dee benn benn ñoo ko nettali dañu am njort bu rafet ne dëgg la waaye mënuñu waat ne dëgg la bu tax bi dëppoo wuñ ci ne jëmmi wax ji dëgg la waaye lañ dëppoo mooy lu mel nii mën nañ koo jëfe mën nañ koo jëfee lañ dëppoo jëmmi jëf ji nag tegu na ci dëggam tegu ci dëgg dëppoo benn yonent yàlla Muhammad mu alayhi wasallam ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu dëggal dëgg la waaye moom si boobu moo la wax ne ku ma atteel dara nee na moom buy atte si zahir amru bi rek lay atte xam nga xeet bi lañ dëppoo si zahir amru bi la ci bitti mbir mi loolu amuñ ci toor biir mbir mi nag moom yàlla santul leen ko comme que yàlla santul leen ko loolu du dugg ci liñ dëppoo liñ dëppoowut te jëmmi wax ji dëgg la am du dëgg ci biir mbir mi la loolu bokk nekkul suñ kàttan ñuy jikki yonent daf laal wax ne ku ma àtteel dëgg te fekk amoo dëgg safara laa dogg jox la jëf jooju yonent bi àtte te waa lam làmmañu neex rek moo tax ñu jox ko dëgg xeet bi yëpp ku ñëw dangay ngay dëppoo ne jëf jooju dëgg li yonent bi bañ jëfee ko loolu mooy lu wéy foo ko teg ci bitti mbir mi yonent yi lu mu dëgg la fu ko teg ci li ko yàlla sant mooy bitti mbir mi waaye ci biir mbir mi waa jooju safara la làkk boppam kon bu ñuy wax dëppoo ki ci zaahiru amru bi la ñuy wax moo tax xadis bu fekkee benn benn ñoo ko nettali daal xeet bi dëppoo nañ ne mën nañ koo jëfee ci zaahiru amru bi am nañ jot bu dëgër ne noonu la waaye baatun amru mën naam waa ji dafa waa ji dafa dafa juum wala mu nar ñun ko moom ñun luñ dëggal mooy lañ gis wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa kon moom fii dafa wax ci loo xam ne yàlla santul ñu ko ñaareel biir mooy xeet bi yëpp dëppoo nañ ñaari seede buñ amee yu wóor yu wane diw moo rey diw du dañ koy rey ñaari seede yooyu ne ko dëgg yàlla ku ne xam na ne mën nañoo seede ci ay yoo xam ne ay fen la jëlee ñu mandu lañ waaye xeet bi yëpp dañuy dëppoo ne rey gi moom jaadu na xeet bi dañoo dëppoo jëf ju baaxut déedéet jëf juñ dëppoo baax na parce que lii leen lislaam sant waaye lislaam santul leen nag ñu wuñ li ñutu xool waa ji ba xam la ñuy wax dëgg la wala du dëgg kon yii dafa bokk ci nga xam ni ci bitti mbir mi la xool ba atte waaye loolu nag du tax mukk ñu dogu ne ci biir mbir mi dëgg la loolu si ñoo nekkul wa mine sax yi bokk na ci li wér a xam ne talaqaaw nangu na ko daje na ak moom bi xabuuri ci nangu wa tasdiq ak dëggal ahlul ilmi borom xam-xam bi xadis ci xadis ka jumhuri ahadis say hani comme lu ëpp ci hadisu Buxaari ak Muslim kooku borom xam-xam yi ñoo ko nangul boppam jami ahli ilmi mboolem borom xam-xam yi biir hadis ci hadis yajimuna dañuy dogg bi si hati jumhuri ahadisil kitaabe ni ci wér ak mboo li ëpp ci hadisu ñaari téere yi wasaayiru naa si mboolem nit ñi tabaan wooy topp nañ la ñeel leen fi maarifati hadis xam hadis borom xam-xam hadis ku dul rek ñoom ngay roy wa ida ajmaa bu dogoo ahlul ilmi borom xam-xam ala shay'in ci dara fa saayiru ummati mboolem xeet yi taboon way topp nañ lawum ñeel um ñu ci njumti ñoom du ñuy dogu ci njumti kon luñ dogu loolu mooy li dëggu ba minu bokk na wéram kon xëy na kon mu bëgg wax hadisu Buxaari ak Muslim dañuy doog na yonantoo ko waaye déedéet boo demee si imaam Nawawi nee na Buxaari ak Muslim ku dul ñoom ñoo ci yem njort bu rafet rek la Buxaari ak Muslim wutee mooy hadisu Buxaari dañuy doog ne hadis bu wér la ci zaahiru mbir mi mën nañ koo jëfee it duñ gëstu sanad bi keneen nag mën nañoo gëstu sanad bi waaye ñoom ñëpp bu dee seen hadis yi nekkul mutawaatir am na ñoo waat nag ci biir yonantoo ko kon moom Buxaari ak Muslim seen hadis yi borom xam-xam yi ne wér na daf ko boole ci nga xam ne nga mën a doog ne dëgg la ba minu bokk na si mattafaq la dëppoo na alolama borom xam-xam ala si ati ci wéram mis la mattafaqa comme la dëppoo na ala ci moom alolama borom xam-xam ne ahkaam ci atte atte yi borom xam-xam yi dëppoo nee na loolu ci ñu doog ne la wér na la bokk waxaasa lii laa yakun du nekk ilaa sidqan lu muy dëgg dëgg la gaa mën nañ ko jëfe wa jumhuru mutuni saxiix li ëpp ci yaxi hadis bu wér mu ne asa dar bi ci xeet bii la bokk hadis yu wér yi dafa bokk ci nga xam ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ne att bi mën nañ koo jëfandikoo wa amatu haadihi lmutuun yi li ëpp ci yax yi takkun day nekk mar wéetandiruñ netteel annabi ci yonent bi salaa sallam mais hadis wujju yi ci ay anam maanaam hadis yi nga xam ne att yi ci ñëw dañoo borom xam-xam yi dañ ko dañ dañoo dëppoo ne mën nañ ko def mm. ñaareel boo xoolee dafa ñëw ci ay riwaay yu bëree bëri bëri rawaaw solo na ko hada saahibu sahaaba bi wa hada saahibu ak sahaaba bi min xëy na waata tawaata si lu ñuy complot loolu de andi nañ ko waaye maa nañ ko bañ a andi ndax sahaaba yi duñ complot ba mislu hada lu mel ni yuji bu day waral ay alma xat yi xam-xam bu dogu nga day waral ñu mën a dogu ne li yéen a ko wa mi maa xat yu sama bokk si nga xam ne dañ ko tuddee saxaan lu wér xam ne yu dana ko بعض علماء الحديث لين شخم كم حديث وآخرون لين لين يخالفون لين يوتي في تسيه تيرو لق لقي برم كم كم الحديث بيرن لق لقي لين لين وير لول الحديث بيرن لين كوي بولا فيقولون لين هو مم دعيم فن وير ولا دعيم فن لطلا ولا يسمع كل بسهيون جلو وير هم لين يقولون مثل الفاظ نيك اي بعد يقمن رواه نتل مسلم مسلم رواه نتل مسلم مسلم في صحيح تيرم بوير با wa naasahu mu xëccoog moom fii si xatiyaa ci wéru xadis yooyu xeeroo kudul moom min ahli almi si xam-xam ci borom xam-xam la ñu wax am na xadis yoo xam ne muslim andi na ko ay borom xam yu rëy taxaw ne wér subaa loolu luñ mën a nangu luñ leen mën a nangu ndax ñoom am nañ dëgg bu tax ñu mën a wax loolu imma benn misluhu ñu mel ni muslim aw duunoo wala ñu xees ko sax aw fooqoo ñu kawe ko waaye nag borom xam-xam yi nangu seen xam-xam la fa haza xadis bu mel nii ne laa yusamu duñ dogu bi sirqi ci dëggam illaa bi dalil lu mooy si tegtal kon moom dafa xaaj xadis yi lépp luñ doog ne wér na rek dañuy doog na yonantoo ko wax waaye xadis buñ ne ñii na ñii ne wérut bu moom d'accord nangu na waaye mënuñoo doog ne yonantoo ko moom noonu la ko xaajee. jàpp rek daal naa di yaa ah, bu dee mutawaatir mënees nañ cee doog bu dul mutawaatir nag dañ ci doog ci zaahir ci baatin ñu ne yàlla xam. Mm-hmm. atan biu saani leetam ñaareel ba. mooy xaala woon Cheikh Mouhamadul Amin Ashinqiti rahimahullah yàlla ko yàlla yërëm mu ne ilam xamal an na taxqiqa naka hóorlu alladi gi nga xam ne laa yajuusu du dagan alxuduuru ñu jéng anu ci moom mooy an axbaar al an axbaar al axaad yi naka xibaaru axaad yi asaxee yu wér mooy yoo xam ne ñëwut ci mutawaatir kama tuqbalu comme nuñ koy nangoo fil furoo yi ci bànqaas yi تقبل دارين كنا في الأصول في جساني ما نام في باس باسي نيني نانغو عادي جوي في أكتي نولنك نانغو في غم غمي نولمي لبير فما سبت الله سخنا النبي جوجي في النبي صلى الله عليه وسلم بأسان نيرة أي سنة صحيحة نيوير صحيحة نيوير من صفات الله يتي ملو يالي يجب ريوار إثباته نيو سخنكو وانتقاده نيو فسكو على وجه تي أنام الله يخيجي يلي bi kamaalillaay ci mat ak yàlla gi wajalaali ak màggaayam bépp xadis bu saxalal yàlla melo dañ koy nangu ci nem xellee ci yàlla pa ñun nuñ ko foogee parce que yàlla lay si kamis li chéun ala nax wi ñu teg ci wax yàlla jum naan lay si nekkul kamis lii di mel ni yàlla chéun dara boobu moom asami maa ji dégg al basiru maa ji gis kon bu ne yàlla am na loxo rek nga jàpp ne comme sa loxo yi kon yàlla yeneen niroo yow ba hmm. bi ci li taalam ngay xamee انما ادبق لا دب انما ادبق لا دبون عليه موم اهل الكلام نيون واخ ومن تبعهم اك نينن توب من ان اخبار الاحاد ان حديث احاد لا تقبل دين كو نانغ فنا قايل سي باس باسي موي گم گمي ولا يثبت دو صاح بها سي موم سيون درام من صفات الله سي ملو يالا زاعم لا ني هوتي ان اخبار الاحاد ان قبر احاد لا تفير دو جيرن اليقين كولتي وانا قايل نك باس باس لا بود دو مانا نياك فيا سي موم من اليقين سي كولتي baatilu neen la laa yaawalu duñ sukkandiku alay ci moom wayak fii dana doy min zuhuri butlaani yi ci feeñ ak yàqoom andoo ne moom yestalzimu dana warlu rabdu riwaayaat yi dàq nettali yi asaxiya yu wér asaabita yu sax ani nabi jóge jóge si yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëre di taxkiimil aqal yi ci rafleeg attiloo xel xadis moom bu saxee ne yu dogo wax rek yow gëmal boo gëmee amoo ci benn problème moo xam ci pas-pas la moo xam ci nangam te boo gëmee it am nga ci yaqin ci jamono boobu waaye yow li nga am yaqin mooy li sa kattan toll li nga gëm mooy jëmmi hadis bii ñu ne yoonu toog wax dëgg la waaye waa ji ko wax wax na dëgg mu waxoo dëgg yow loolu yàlla attilawul kon busi busi du wala xool xel tatadaalu dana toroxlu amaama azamati sifaatillahi ci kanam màggaay ak melo yàlla yi kon at hadis yi kenn du ko dàq ci attiloo xel rek ndax xel attilul màggaay ak yàlla وقد جرت داون عادة المتكلمين عادة وقت يا أنهم نجم يزامون دني يورتنا أن ما يسمون نكرني تدي الدليل العقلي هو مو القياس مو القياس المنطقي كي كجوك تدو الذين جاء قم يركبون ودرين كتوغلة من مقدمات إن أي بيرين جيتل استراه دفون أن على أتمام أنه نمو مقدم ودرين كجيتل على وحي كوحي بفكة نعم لنا رحنا دالنا التخل مو مو جيت وحي فهم ما ما ريوه wa hada li min ahzami al-baatil muy bokk ci caaxaan yi gën a màgg li annama yu sammuuna ndax la ñuy tuddee ak dalil al-aqli tegtalu xel booy sammuuna ñuy woote ana intaaju nag lam génn lil matlubi ñeel lañ sàkku xat yu luñ dogu la buñ ne ak xel bu xalaatee ba génn résultat bi rek amatul benn sikk sàkk woo wax jooju jaxlu deer la wa taxabutun làmbatu la fi zulmaat ci ay lëndëm xel léeg-léeg mu génne dara fekk loolu njumte la te loolu la gis léeg-léegi sax science génne dara ba islam ñu ba gis ne junni la wa min awday adillati bokk na tegtal yi gën a leer waa saraha tegtal yi gën a fës fi zalika ci loolu an haadi taifa ne kuréel gi taqulu mën naa wax masalan ci misaal ne inna aqla naka xel yam naw dana tere kazali mina sifaati ci melo wa yujibu dana waral kazali mina ci melo yi dégg nga wayen foonu ñuy dàq nusuusal wax yi teg si wax yi binaan tabaqara zalika ci loolu léegi-léegi ñu jëfandikoo seen xel ne xel mi lii la nangu nanguwul lii dàq ci hadis yonent ne kon lii yonent waxu ko parce que xel nangu ko fayaati mu dikk xusoo moom ñooy xuloog moom koy xuloog ñoom min taayifatin uxra ci beneen kuréel wa yaqulu mu wax ne haada lii allazi bi nga xam ne zaamtum hoote ngeen am na àqal ne xel yem noo da koy tere kësabtum fen ngeen fii ci moom ba li fi nekk an àqul xel yu ji boo daf koy waral léegi nit ne li xel nangu ko keneen na ko xel nangu na ko ku ci wax dëgg bu daate xel la ñoom ñaa xel la kon léegi boobaa nu ni nu ñuy nangoo hadis moo tax ne loolu kenn du ko nang ndax ñom lañ wax na xel nangu ko man na ñu ñu jub wa ma zakatum la ngeen tuddu bi annone mom moom xel daga na lako aw uji boo wala waral nako ko kasabtum fii fen ngeen ci balli fi nek wo mom xel yam no da koy tere lele nga li xel maye na ko kenn benn waaye ne xel nangu ko وهذا لي معروف ينقم في الكلام كي علم الكلام في ay masara مسألة كثيرة bari ma'rufatun qam kaxtilaafi mu ni ko wutee gu ñu wutee mhm. fi afaali abdi si jëfi jaam yi ndax jaam mooy jëf wala yàllaa ko dogal mhm. wa jawaasi ru'yatillaahi ak danga na gis ak yàlla bil absaari ci bët ñi dàq ko ci xel ñi saxal ko ci xel wala arda ndax gaar gaar yëpp xaadee des samaane ne ñaari jamono ñi danga dàq ko ñi saxal ko yaa xëy daal jëm ci lu loolu kon fay ji bu dana war alal muslimi ci jurit an yataqabala mu nangu kulla shay lépp lu lépp lu nekk ani nabi bu jugee si yonent bi sallallahu alayhi wa daal lu jugee si yonent ko war بسند بري امنا سند سايين بو وير ويعلم مقام انه لي امبام ان لم يحصل بو امود لو نيو كن هدا نجوب ون نجات اك موتش بتباع ما ثبت سي توب لا سخنا عن جوغي سي نبي صلى الله عليه وسلم فين نك لا يحصل بو ام لو نيو كو ذلك لول بتحكيم عقلي سي اتلو قلم التائب اجرم في ظلمات الحيره تي نما جرم وجهل اجرير بري توب يونت جرانيول لا تقل ميغا خامني فين كامل كلام لان لا كلام لان مي bu dee topp yonent jubalul la jugee ci yonent bu la jubalut xel laa jubal kon lu yonent wax rek nangul ak même bu dëppoo ak sa xel waaye kulli xaalin ci lu ma a nekk fa isbaatu sifaatillaahi saxal melo yàlla yi bi axbaari ahad yi ci xabaru ahad yi ak saxiha yu wér wante xaali tilka sa sifaatun ak fas ne ak fas melo yooyu xadis yi bu melo nga jàpp ko kana xam mu ngi mel ni jëfe bi ma dalal cere tegtal naa ci moom awaamirulaay ndigalu yàlla yi mën a waaye yi ak ay kama anna comme ni nga xamee ne att yi tasbutu day saxee bihaa ci ndigal yàlla yeeg tereem wala boog kama anna comme ni nga xamee ne tasbutu dana saxee bihaa ci hadis yooyu awamiroo ndigal yàlla wan na wax yi ak ay tereem kooku kasaare gi nag noonu tasbutu dana saxee bihaa ci hadis yooyu sifaatu melog yàlla yi dégg nga waaye nag ñoom dañu daal seen xel yi daal lañ jëfandikoo ba bañ ko nee na loolu loolu loolu warul xam nga bu fekkoon ne lislaam affaire bi affaire xel rek la su boobaa jëratul wax yi wàcc dañuy bàyyi nit ñi xelaat rek waxat bayyannaa leeral nañ annaa ne moom min ihda jihateen yi ñu bokk ci benn ci ñaari wàll yi xatiyatan ci dogu ci dogu maanaam hadis yu wér yi leer loolu lañ ne dafa bokk ci yi nga xam ne dañ ciy dogu ñaari wàll yi ñu dogu mooy hadis yoo xam ne mutawaatir la ak hadis ahad yi nga xam ne nee na lu sax na ne wér la in uridu al islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh